maa ngi nuyu tur sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadou Mountakha di nuyu bokk taalibe yi nga xam ne ñoom la bokk liggéey bi bokk taalibe bi fi nekk yoo xam ne ñoo kaddaay fekk sëñ Tuubaa bàyyi seen gént maam yi seen gént bàyyi ñëw fii nag dikk fi am fi am jafe-jafe yu métti métti mooy ndox mi dana génn seen kër ndax fuñ dëkk xam naa ne moo dafa ndox mu bare euh, lu ma ñaar téeméer kër génn nañ fa te amuñ jëm kër gu ne ñaar téeméer boo ko xaymaa kër gu ne génne ñaar ñaar fukki junni daanaka dañuy génn boo xoolee te kër gu ne génne fukki nit rek ñaar téeméer kër loolu jege daanaka ci loolu lañ tàmbali liggéey bi woote ko am been benn bokk taal bi ñu ñëw kon may ku ñëwutoon na nga ñëw ku ah ku ku mënta ñëw ci te am loo jàpp dañ ñëw na nga ñëw nga xam ne daal mbokk taal bi yu nekk ci ndox mi fi nekk te kenn ku ne bu ko xoolee ne jàpp ndox mi rek nañ fexe ba fii dugg ci béy ba sëñ Tuubaa waxoon waxtu ba sëñ bi yetaama daawa man an si bi aban ku lexin euh, yàlla da nga fàttaloo jirim yi seen day seen baay daa euh, big naa doon seen big ti boo xam ne bokk taal bi yi nekk ndox mi nekk jafe-jafe metti nañ fexe bu ndikkee fii ngeen góorgóor fii mel na ab cité boo xam ne euh, cité Sëriñ Tuubaa bees lay boo xam ne ko defal nit ñi nekk kon la laay wax rek kon maa ngi woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw waaye rawatina njaboot Sëriñ Tuubaa gi ñi bokk Sëriñ Tuubaa dañuy jóg ñu xett leen sama bokk yi yaa àll bari yaa àll bari fa jiwdu bari bari saqaay sëñ bi woote woon ak géej gi wóor géej gi waaye ñun ñi nga xam ne lu ñu am tax ñun ne Sëriñ Tuubaa dafa ñoo boole ci boppam te boole gi ci boppam du suñu liggéeyam day du suñu du suñu pexe jaayut ndax bu doon jaay am njëg gi mm-hmm. ñun ñëpp Sëriñ ba suñu yaay ñu leen yónni suñu yaay toj suñu toj ci kaw donc yi nga xam ne amuñu seen amuñu amuñu lu seen bopp Sëriñ Tuubaa jàpp seen maam ci toolu xare Sëriñ Tuubaa jël nañ ci marché bi yàlla képp lañ ànd ak moom buñ leen liggéey ñu liggéey leen buñ leen laaj ñu jox leen buñ toogee ci kaw ñu toog suuf buñ leen defee ñu def ko bu nekk ci ay jafe ñu fàttali la kenn xamul lu mu doon te ëllëg lañ jëm àdduna àlaxira yàggal Sëriñ Tuubaa àdduna àlaxira nag ko yàggal Sëriñ Tuubaa nag àdduna si képp nga am jafe-jafe loolu dañ saal suñu bopp kon maa ngi woo sama bokk yi bokk Sëriñ Tuubaa ñëpp lañ jóg looy am jógal ñëwal joxal di mu leen ngi Sëriñ Tuubaa kenn ku ne am nga loo xam ne wër na bu doon Sëriñ Tuubaa doo ko am sama bopp laay tàmbalee nañ futtiku dëggee sëñ Tuubaa ci jaamu yàlla jaamu yàlla yi ku yàlla na dimbale koo xam ne sëñ Tuubaa mi fees na soxal wala yaa ngi yëg sëñ Tuubaa rek na ñëw bokk Tuubaa ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh إلي فارزقه هدى أو مالا وكل من ستمني أو لاما ak sama application Wave mën naa ci jaarale sama addiya mu jëm ci Touba ca kanam nii laa koy defee damay ubbi sama application Wave dem ci menu paiement cliquer ci logo Touba ca kanam mu indil ma fi nga xam ne lépp lu ma bëgg a yónnee ci Touba ca kanam mën naa ko ca jaarale valider ko mu dem ci compte Touba ca kanam jërëjëfe Serigne Touba.